pexe moo tax ñi ñi ñi ñàkk pexe rek amuñu leneen leneen luy def waaye bu ñu sañoon daal géej gi du mel nii parce géej gi ni mu mel nii en majeure partie usines yi ñoom ñooy sotti seen déchets yi fii mooy waral rigole bi ngay gis nii ak rigole bi ngay gis nii mais bu njëkk ba mel woon ni suuf si weex tàll moo fi amoon. mais Yaraax waag mii nii baaxam la di sag at dafay ñëw si tefes bi di yàgg na fi wàcce de waaw. xam nga géej gi dina toll woon géej gi tefes ngaa ngoon fële ca kaw géej gi dox di ñëw loolu yàggoon la waaw wala yàggoon bu toll ay juróom-benn fukki at yooyu booba fii du tefes gi tefes ngaa ngi jënu keesu ngaa ci kaw fii suuf dafa nooy népp nit ñi bëri nga waaye du ci noonu lii moom caque at bu seddaay bi jotee day ñëw mais bu seddaay bi di jeex day ànd ak moom dem day dem tamit day demaat ba après day dem ba jeex takk waaye seddaay bi moom mooy bu seddaay bi jotee daal day ñëw bu seddaay bi dem tam day ànd ak moom dem waaw. ndax fii noonu am fi la ñuy fii la ñuy suturloo fii la suñu teraanga nekk kon kay bu fi ñuy suturloo fi la lépp day daal suñu fi fi mooy suñu moom la am. li ñuy liggéey ba ngoon jot ñi ñibbi suñuy kër ensemble jàmm nag salaam rek toog léegi añ toog waxtaan julli toog jàmm yàlla toog loolu rek mooy suñu métier nag. ah yi de nii nañ ko bàyyee ba léegi jéemuñu si dara nii nañ ko bàyyee si nii nañuy liggéey si kawam tamit waaw si nii si liggéey si kawam. non géej gi melul woon ni mais instant bi moom yaraax moom daa set moom changement bi moom am na baa baax waaw melul woon ni bi ma fi nekk moom melul woon ni de.